عليك صلاة moom ñoo ko tagg nam ñu daan taggale yonent bi sallallahu alayhi wa la lépp nag ci yonent bi la ndax jotaay buñ lal ci xam-xam wala ci màggal borom xam-xam yonent bi sallallahu alayhi lañ ko màggalee ndax moo ko moom ndax mooy borom xam-xam mooy borom jikko yu rafet yi bon nag ñu dem ci beneen borom xam-xam boo xam ne mooy al imam Xasan ibnu Ali Cissé radiallahu anhu doomi sëriñ Ali Cissé ak Fatimatu Zahra di sëtu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu di ko xam ne yar nañ ko jàngal ko xam-xam mu dem jàng ci réewu arab yi jógee fa ñëw jàngil Angleterre ca Britaani ñëw dellu nekkoon ak baayam ak baay di ànd ak ñoom ci ay tukki rawatina tukki mi nga xam ne mooy tukki mi nga xam ne moom mu jël muñ xamal baay ci àddina bon nag liñ ko tànnal mu waxtaanal ci tey mooy li mujj ci dundi baay ay weeram yu mujj ay fanam yu mujj ay saam yu mujj lam ca def ak lam ca wax ci lu baax ak lam ca digle ak lam ca sëttaane imaam Xasan Cissé mi nga xam ne moo seede loolu moom la ñuy jox mu waxtaanal mbooloo mi ba nag ànd leen ak yar ak teggin. Cheikh Al Hadj Ibrahim Niass di nuyu itam mboolem kilifa yi fi teew Cheikh Mouhamad Nazir mi ngi ni toog Cheikh Mouhamad Lamine Cheikh Mouhamad Al Mamoun ak mboolem seen rakk yi fi nekk ak muqaddam yi nga xam ne ñu ngi fi teew itam ñu ngi nuyu ñëpp. kenn ku nekk ci turam ak santam gannaaw bu Cheikh Mouhamad Lamine waxee wax ju fasaaxa jim fi wax nga xam ne lépp daf koo teg ci alxuraan ak sunna ci taarix bu wér ñu waroon a def mooy ñaan rek tas mbooloo mi waaye ñaan ngeen ñu ñu wax ay baat ci bés yu mujj cheikh al islaam alxaaji ibrahim Niass bàyyi nit la koo xam ne li cheikh ahmada tijaani tontu woon taalibeem ba rek mën nañ koo tontul bàyyi taalibe ba dafa laaj cheikh ahmada tijaani ne ko hal yukzabu alay ndax danañ la fenal mu ne ko naam mu ne ko su boobaa nu ñuy def muy mu ne ida samiatum an ni cheyan fa zinuhu bi misaani shar'i fa maa waafaqa fa xuzuhu wa maa xaalafa fatrukuhu lépp lu ngeen dégg ne ci man la soqee ko man Ahmada Tijaani peese leen kook man ndaxam sharia su ko sharia accepté jël leen su ko sharia bañee bahi leen bàyyi itam lépp lu ñuy nettali ci moom rek mën naa tegu ci alquran ak sunna dama toog ci Nigeria benn waaye di ma taril xasida baay ba àgg ci fi bàyyi di wax ne laa siyama mu moom waa ji mu jàng ne laa siyama haza rafiu shaami walaw bada xalifata tijaani ma ne ko dee taxawal bàyyi du wax loolu ndax baay jàngale woon na ci dar si tafsir ne firawna ba mu yëkkatee boppam ne laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin laaye ja ca topp rek yàlla def ko caa wàcce ci baat boo xam ne mooy màndaxaak baat bi nga xam ne ci la ko weele boppam al ana wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin moom muslimiina la askan boppam yàlla askan ko ca mufsidine yi way yàqee jàngal ñu itam ne yonent yàlla yunus ba mu suufeelee boppam ci ñetti lëndëm ya lëndëm ak guddi ga ak lëndëm ak géej géeg lëndëm ak biiri jën wa mu wax ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina ab yonent la boole boppam ca tooñ tooñkat ya yàlla wax ci xaqam ne fajtabaahu rabbuhu wa jaalahu min alsaalihina moom zalimina la waxal boppam yàlla teg ko ca saalihina ya kon bàyyi du wax laa siyama hada rafiu shaani mu ne ma xaqiqatan huwa qaala an nafsihi laa siyama haza alxaqiru aljaani amma ana fala aqulu hada fi cheikh Baye dafa wax ne ku xeebu kuy mooyaakoon bi waaye man loolu duma ko wax ci Baye nit ku kowe kii laay wax nit ku kowe mbir kii man loolu laay wax ci Baye moom nag lu ko neex mu wax ci boppam lépp lu ñuy wax ci moom soo ko seetee ci alquran wala nga seet ko ci sunna rek da nga ko gis foofa ay bésam yu mujj man ànd naa ak moom tukki ak suma najaay Cheikh Mouhamad Lamine jële jóge nañ fii Dakar ànd ak moom gunge ko mu faju ji Paris ànd naa ak moom tukki maag suma najaay Cheikh Mouhamadul Maamun muy toog wax na ca biir oto ba Maamun a ngi toog ne ma dañ ñoo waxoon ne dee nga sa baay jàq ca loolu waaye maa ngi lay xamal ne yàlla xamal na ma ne man danaa dee Serigne Aliou dee nga soog a dee waaw Serigne Serigne Mamoun a ngi toog ñu jëm ñu dugg ci oto bi jëm Burjul Qahira koo xam ne yàlla xamal na ko loola lan mooy ñëw ca kanamam lu gën a fir loolu ba ñuy tàggoo suñ tàggoo bu mu jëppari maak moom muy ñaan ñaan gi gudd ak man lool ba ma wax ci sama xel ne xëy na lii daal mooy jataay bu mu jëg bàyyi ndax man musuma ñaanal ñaan bu guddee nii ba ma génn mu mel ni yàlla def ko xamal li ma wax ci sama xel mu ne Kabir dabal ma Assane ma ñëw mu ne ma jox ma sa loxo càmm mooy ma bindal la ci loo xam ne du ma dee mukk lu may teew nga ca déwén sa ci la ñëw Londres lii ñuy nettali bàyyi ci boppam ca bésam bu njëkk rek waxtaanam mooy waxtaani saalixiina yi naka lañ dee nettali na ma sama maam alsan naka la génne àddina teg ci baayam ak yeneen kilifa yoo xam ne ci réew mi bugguma leen a tudd ndax wax ji dafay gën a yaatu kon waaye nee na ma sa maam alsan dafa jaayante woon ak suma baay ñoom ñaar ku ci njëkk dee ka des di dund dana teew ca bàmmeelab ka dee wàcceel ko fa kaamil mooy ba mu feebaree bind na suma baay leetar booba suma baay jàngatut man maa ko jàngal leetar ba mu wax ko ca leetar ba ne ko dama feebar ba ma sama bopp maa ngi lay dénk suma doom ji ñuy wax àlliyu mu ne alsaan génn àddina ci ñetti fani weeru koor ba wax ji ñëwee kawlax maam alaaji ne suñ demee ba naan danañ ñëw bañ naa ne mu jógee fa dem jooson dem jaale ji ak itam matal ahd bi nga xam ne doxoon na seen diggante wàcceel ko fa kaamil yamut ca wàcce kaamil ba ba mu ko wàccee ba pare ñaari doomam yi àndoon ak moom Baye ak alhaji Mouhamad Khalifa mu geesu leen ne leen marsiyaal leen ma sama soppe yi tëdd fii muy alsaan ak Samba Thiané maamam maamam bàyyi daal di bind xasidaam ca saasa bañ demee ca mbooloo moom bam mu laajee àll yi moomu ñu ko dénk bañ indi ko mu ne man de li jaaxal na ma tafsir alsaan day kii lay dénkaane waaye kii day ku ko booleeg Ibra mu dem moom itam loolu la ca teg ca jataay boobu la ko booleeg Baye ba muy ñibbisi moom itam ci la ko feebar yi day am jot ci yoon wi bàyyi mu ne ñu ngi dox waaye waxtu wuñ doxee tuuti rek karasool lañ demee danañ taxaw nopp lu mu ne bañ ak si kóosi mu ne ko bay danga gannaaw sa yaram dafa diis sooy boo nga tëdd fii noppalu tey ba ëllëg mu ne ko man de du ma bañ ku ma digal kon nañ wàcce ñu toog fii mu ne booba bàyyi morgey jim jim géey mor jim mu mag ba mu déggee wax ja mu dem ak àbb benn oto boobu benn oto rek nekk ci kaw lax benn tubaab bu ñuy wax Dupont moom ko pour jëli maam alaaji mu ne ba oto ba ne dër mu ne suma bàyyi ne ibratul waxoon naa leen ne tey duma fanaan fenn lu may sama kër xaw ma kañ ngeen di nangu suma xutbaan yetu gi mu ne bañ demee ba kër defe naa ñetti fan la fa maam alaaji am dal di génn àddina ci fukki fan ak juróom-ñett ci chewaal bàyyi nett lii itam na baayam génnee àddina mu ne ma bés ba muy génn àddina ñun doom yi dañoo daje woon jàngal ko kaamil pour yàlla saafara ko ci feebaram mu ne man maa mujj jàng ca ña doon jàng kaamil ba maa nga eewal ca sa tajidu ni inchaa allahu min alsaalihin mu ne ma dugg ci sama baay ne ko baay man de am naa yaakaar mu ne ko ah mu ne ko man maa mujj a jàng te maa ngi jàng sa tajiduni insha allahu min a salihin mu ne ko waaye insha allahu la wax de mu ne ko waaye bàyyi min as-salihina ji mu ne ko ibra jàngal way ayyama la jëlay ni qadaytu fala udwan alayya mu ne ba waxtu génn àddinaam jotee mu ne baayam waxtu tusubaar la mu ne moom moo ko jiite tusubaar ak takkusaan ndax ba mu ko jullee tusubaar ba pare ne na ko walil musaafiri an yajmaa bayna al waqtayni booleel ba ci takkusaan jiitam mu ne mu jiite ko takkusaan ba mu pare mu ne bàyyam jàng fatiha ñépp di dégg mu dal ca bopp laan ba ci alladina yazunnuuna annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi rajiuna mu taxaw foofa na ko ibra wàcceel ma jawahirul maani bi mu wàcce mu ne ko jàngal ma muqaddimatu bi mu ne mu jàng mu ne ko jàngal ma xaatimatu bi mu ne mu jàng ba fa taalifkat ba wax ne wa bi haada fii yakfi lil mutabarrikina tabarruk mu ne sama bàyyi dal di teg ca ca xaatimatu kon gannaaw bàyyi dana daanañu nettali saalihina yi seen mujj su ngeen ñu ñaanee ñu netti lañ fekkee ci mu jëm itam dëgg-dëgg lu mënu la te wax naa ne Baye daana wax ci sidna Omar ibnu Xataab ne dëgg suufeel ma te néew na bu mu amee moo ma gënal fenn yëkkati ma te néew na bu mu amee Baye liñ koy waxal fii yépp dëgg la te lépp dëgg ju koy yëkkati la ñi ko xam ak ñi ko xamut ñi ko bëgg ñi ko bëggut ñépp suñu waxee rek nga bëgg ko Cheikh Mouhamad leen wax na léegi ci waxam ne ci li baay ak ci xam-xamam bu yàggut benn euh, shérif daf ma téléphoné ñu di wax Cheikh Mal Aynayn ci xaadir yi la ne ma Assane yow bëgg naa la te gisuma la waaye dinaa la digal sama am sama xarit la woon bul foog ne xaalis bu mu daa tasaare ci nit ñi moom la ko nit ñi bëggee woon walla xam-xam jikko bi nga xam ne moom la jiite woon nit ñépp mooy boroom ngëneel bu nekk rek bàyyi nangul na ko ngëneelam ne ma jàppal ñaari bayt yi ma lay wax fa maa abbara al insaanu an fadli nafsihi bi misli ictiqaadi alfadli fi kulli fadili wa inna ashadda naqsi an yarmiya alfata qaza al aybi an aynihi bi intiqaasi al afadili mu ne ma bàyyi boroom ngëneel bu mu gis rek nangul na ko ngëneelam xoolal ni meloon ci sëriñ su baax soo jàngee téeréem yi ñoom Cheikh Ahmadou Bamba si Hadj Malick Seer ñépp tudd na leen ci téere bi waaw ndax xam xam-xam ak njub fu mu nekk rek moom nangu na ko te may may nit ki lu mu foor foor rek wàññiwut ci may baay dara Cheikh Mouhamad lay wax na ne soo gëmmee rek koo téye mën na laa waxal ci baay Isaaka keroog dañuy waxtaan mu ne ma soo gisee bàyyi waxtu wu tëddee ci nelaw mën naa waxtu wu tëddee ci lalam mën naa nelaw may beneen nit def koo tiitalut ndax xam na lam am fa yàlla dégg nga wax ji mooy lam am fa yàlla xam na ko moo tax may beneen nit tiitalu ko te taalibe bi su dëggoo fañ tibbalee sëriñam rek lañ ko war a tibbale walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay gannaaw bàyyi mooy bàyyi doom yi mooy bàyyi taalibe yi mooy royukaay bu mag bi li ñuy nettali ci moom yépp pour jumu ci moom la fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fàttali dana dana jëriñ way gëm ñi imaam junayd am na ku ko laaj ne ko inda zikri salihina tanzilu rahamat maza yanzilu inda dafa tiit ba xam waaye ñun li ñu et itteel rek ci jataay bi mooy inda zikri saalihina tanzilu rahmat jataay bi suñ ci amutoon dara lu mooy li ñu naan bàyyi bàyyi rek doy na ndax tudam mën naa wàcc ay yërmande mën nañoo génne ci muskile yi nekk yépp ak mbooleem li ñuy tawat ba mu jógee di ñëw London nit ak sunni yu la woon comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp ba mu wàccee ci aéroport rek xale bi ko njëkk a nuyu mu ne ma Assane kii nu tudd ma ne ko kii de Aliyu la tudd mu ne ma loolu de uluwu la ma ngay def tafaawul ndax yonent bi daf daa def tafaawul ci tur yi su ngeen fàttalikoo ci sa baay ca Xudaybiya ba waa Màkka yi yónnee Suhayl mu ne Suhaylun sahula amrukum gannaaw Suhayl lañ yónni kon seen mbir yomb na bàyyi itam noonu la meloon di def tafaawul ci tur yi ba mu ne ma xale bii nu mu tudd mën a ko Aliou la tudd a loolu de uluwu la ba mu demee fañ koy dalal itam ci étage bu mujj ba fa la dal waaw ci hôpital bi muy mustashfa Saint Thomas ci Angleterre ci west Westminster ci digg Angleterre itam mu di la fàttali ba tey bu Diouf wayam wam waxoon ne biddiw bu mag ba fàq na daanu ji London pays Angleterre ba mu woyee woy weeg ba bàyyi di dem Angleterre daanaka fanweeri at wala ñeent fukki at dox na fa ba mu ñëwee ñëw ak leer gaag wilaaya gaag xam-xam baag dara mankiwut soo ko seetee ci xam-xam fekk fa xam-xam bu leer ñii doog yonent bi ci lu nekk ba ci feebar bu métti yonent bi nit seet si na ko ci feebar ne ko yaa rasulallah innaka la tuaat mu ne ko kama yuaku rajulaani minkum comme ni ñaari góor di feebaree ci yéen noonu laay feebaree ma itam bàyyi itam daanaka doon na loolu ci moom niroog yonent bi ba ci lan lañ mujj wax sidna omar am na ku ñëw di ko laaj ci riba mu ne ko aayaatu riba nag dafa bokkoon ci laaye yi mujj wàcc ci yonent bi yonent bi leeralu ko de dab ko bàyyi man ma jàng journal rek ñëw na ko Baye journal bi dañu ngi wax ci intérêt banque yi ndax riba la wala du riba am na boroom xam-xam yu wax ne du riba am na ñuy wax ne fii xawlaani mu ne ma xawlaani lan te ñoo wax ne xaraam na wala xaraamul rek hmm? mu ne ma suñ ko mënoon a éegal ci xiraat kon dana mën a nekk xiraat mooy ñu lebal la xaalis tey premier décembre nga jël xaalis boobu dem liggéeyi jee ko su weer wi jeexee wala su at mi jeexee nga delsi ak xaalis bi ñu seet lan moo nekkoon capital ba ñu teg ko fële ak say coono la nekk di ribxu wala bénéfice ñu def ko 50 50 yow mi moomoon xaalis bi ak ñi doon liggéeyee xaalis bi mu ma suñ ko mënoon a éegal ci xiraat de ma ne waaw Abdoulaye ak Ubaydullaay ñaari doomi Sidna Omar dañoo tukki ci jamono sidna omar dem cham mu ne bañ demee ñu fekk fa abu musa al ashari mu ne abu musa ne leen yabnay amiril muminin law raaytu tariqan anfaukuma bihi la nafaatukum huna baytu huna maalun li bayti maalil tashtariyaani minhu qamxan wa ida rajactuma ila almadinati tabiaani wa ida urbixtuma taaxudaani ribxa wa taruddaani rasa maal mooy maa ngi amee xaalis boo xam ne baytu maal moo ko moom jël leen ko ngeen jëndee ko mbokk booba benn irdëb ci xam ci Sham mi ngi jar ñaari dirham te soo ko yóbboo Medina mën nga koo jaayee ñeenti dirham mooy leen su ngeen ja su ngeen jëndee xam bi dem Medina su ngeen jaayee ba tono ngeen delloo rasumaal bi baytumaal mi ko moom bénéfice bi ngeen jël ko ah ñu def noonu jënd seen mbokk eb yóbbu dina bañ demee sidna bañ jaayee xaalis bi doublé ñu bëgg a jël seen bénéfice sidna Omar ne déeréet ndax daf leen a defal loolu ndax yéen yéenay doon émir yi ndax defal na ko ñi àndoon ak yéen ci jeysi bi ñi des ci jullit ñi àndoon a yéen ndax defal na leen lu mel noonu damay jël xaalis bi yépp delloo ko baytul maal ras maal beeg bénéfice beeg yépp dañ koy delloo baytul maal Abdoulaye noppi Obaydoulaye daal di wax baayam ne ko gannaaw xaalis bi su réeroon wala su sànkoon dañ koo war a fay kon su juree ñun ñoo ko moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al mu'tamanu daaminun nit ki suñ ko óoloo bët ba dénk ko rek moom moo warlu lañ ko dénk su réeree itam daf ko war fay Omar daal di insister ne dafay jël capital beeg bénéfice bi yëpp def ko ci baytimaal bàyyi mu ne fekk am na ci saxaaba yonent bi ñu fa toogoon ñu ne ko law taatabiru hada al amra qir sidna Omar d'accord defal leen ko xiraat dal di jël rasmaal ba dugal ko ci baytil maal ribx ba mu seddoo koog xale yi jël cinquante pour cent ci bénéfice bi def ko ci baytil maal cinquante pour cent mu jox ko xale yi fifty fifty comme li oustaz wax nit ku mokkal say masala ba tëdd ci lali dee mokkal say masala ma ne ko lu duwut loolu dem nañ ba waxtu julli jot mu ne man ndax waxtu julli yu jot na man ne ko waaw mu ne ma man naka laay def tey ndax ñi ngi takk pikiir bi ci suma loxo nu may tiimee wala naka laay jàppee ma ne ko yow bàyyi bul julli tey man booba maa ngi taawi rek laay yukallifu llahu nafsan illaa wasaaha yàlla tegut benn bakkan lu mu attanut mu ne ma loolu la Maalik wax wa man lam yajid maa an wala mutayammama fa arbaatul aqwaali yaxkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qaala malikun wa asbahu salla wal adaau li ashhaba mu ne ma Malik def ne laa yusalli wala yaqdi ku dem ba nga xam ne amoo ndox wala mënoo jëfandikoo ndox wala mënoo amoo tiim mu ne bul julli te soo demee ba am ndox wala am tiim sax bul fay mu ne ma loolu la Malik wax amma ana fa usalli waaye man de man damay julli man jël na raayu abul qasim abul qasim moo ne yusalli mu ne man damay julli man te duut ne ay masalaam ci julli géeg ci ribaat bi loolu rek foofu la ko emale waaye ba mu demee ba nga xam ne mënatut a téye kurusam gi sax di wir daa loxoom baaraamam mu fàttaliñu ñu imaam Junayd bés bi muy génn àddina nekk benn taalibeem fekk ko muy sonn di fii di jàng alquran di di di wàcce ne ko mu ne ko wa fi haada al xaal yaa abal qaasim mu ne ko suma dundoon junneey at du ma bàyyi ci suma awraat yi dara xaalun biha wasaltu ila allahi fi bidayati kayfa atrukuha fi nihayati xaal boo xam ne ba may commencé ci moom ma àggale woon ci yàlla naka laay dem ba egg ba nekk ci sama mujj di ko bàyyi bàyyi itam soo ko toppee rek danga nga gis loolu ci moom muy alquran muy Paris muy Londres sooy seeti bàyyi ci ci hôpital te xamoo ban chambre la nekk li lay xamal ne mu ngi fii rek mooy yaa ngi dégg muy tari alquran nekk na di ko tari ba ma yërëm ko dem utal ko mustaful murattal ndax moom la daa déglu ci néegam mu ne ma xay lii mënta watt sama tari mi di bàyyi ma ma tari rek soo déggatut suma baat sax xamal ne maa ngi tari bés bi nga xam ne ci la opéré opération mujj ba tey li ñuy wax ne kaana yatafaalu bil asma dafay wax toujours ne nañ ko muñal ba waxtu julli wi jot mu boole tusubaar ak takkusaan ba tusubaar jotee ñu boole tusubaar ak takkusaan am na téere boo xam ne ñi daat fukkeeg ànd ak baay yépp xam nañ ko ci loxoom muy al azkaaru nawawiya dana ci jàng ay bunt baabu maa yaquluhu al marid ida ayisa min xayaatihi baabu maa yaquluhu al marid ida ishtadda al alam wa fi nihaaya mun a jàngal ma xaatimatu bi nga xam ne salaasuuna xadisan alayha madaarul islaam moom lañ ko mujj a jàngal fanweeri xadis yoo xam ne lislaam bi yépp ëmb na ko maanaam lislaam bi yépp mi ngi ci cercle boobu moom lañu mujj a jàngal baay mu jullitu subaar boole ko takkusaan suñ daa dem dañ koy ànd ak moom ndax daf daa wax ne bokk na ci mën a netti taarix fekkee suñ demee ba muy dugg ñu téye ci loxo muy wax laa ilaha illallah ñuy wax muhammad rasulullah ndeysaan maa ngi fàttaliku benn bés ñu yóbbu ko yàggal ko lool mu ñëw ne ma man day tey fañ ma defoon dama seet seet fu ma tafli aw ma fu ma tafli ma fàttaliku benn bés ma ànd ak Lamine dem ci durusul xasaniya ma bëgg a tafli aw ma fu ma tafli la mel ne ma tafli fu la neex ma itam a mujj rek jël wax jooju di tafli rek waaw bañ demee bañ yóbbu ko ci opération bu mujj ba muy génn rek sa ay toog Aysatu agsi mu ne ma Asan yow mi foogoon ne danaa dee tey deetuma tey xaw ma ban bés la waaye tey moom deewuma ma ne ko ah mu ne ma maa ngi nii di génn saadatoo ngi nii ak ay Aysatu di dugg ci man deewuma tey gannaaw loolu dund na ñetti semaine ba mu bañ yóbbu ko ba mu dellu si ngi ci nelaw yi kuñ pikiir bokk na ci sunni yotoom du nangu mukk ñu jam ko pikiir bi pour nelawloo ko lu may baatam bu mujj mooy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da ngay gis baaraamam bi di def nii ba pikiir bi daane ko loolu lay mujje wax ñu soog koo pikir te moom bokk wax na ne mën naa toléré ñu opéré ko te du yëngatu waaye docteur yi dañ na ko fii dégéree métit wi toll yow mënoo koo def tasawur xelam doomu aadama mënu koo def tasawur ala foog pikiir bi te ñu ngi lay xamal ne pikiir bi ki ki la koy defal si bokk na ci ñi nga xam ne expert yi nga xam ne bokk nañ ci ñi ko gën a man fii ci Angleterre muy docteur Airways moo ko defal pikir boobu bañ demee ñu ne ma balaa ñaari waxtu dinañ delloo si góor gi ñaari waxtu jeex na gisuñ ko ñetti waxtu jeex na gisuñ ko ñeenti waxtu jeex na gisuñ ko ba docteur bi jógee ca saal ba ñëw ne ma maa ngi lay bégal góor gi soowe na léegi tey ñu indi leen ko ba ñëwee ba tëdd li ñu xamal ne soowe na waxtu wi mu daa tari alxuraanam ji ba mu jotee rek dafa commencé di tari te mi ngi nelaw suboom bi muy tari ba mu jeex xanaa kon yàlla may na ko ñaanam gam doon wax ne fal tajaalan xifza kitaabika alkarim karamati ila liqaaika alazim mokkal téere bi di ko tari guddeeg bëccëg bokk na ci ay karamam toppatoo ay julleem bokk na ci ay karaamam daf doon forse di taxaw mën na ko bàyyi laa yukallifu llahu nafsan illaa wasaha ci julli timis mu toog ba ñuy liqaam gee rek mu dal di buur taxawaat xol mayu ko ko awraat yi itam noonu la ca def ne naa ba mu demee ba mënut jàng ay awraatam ci kurusam dama ko indil ndox mu may xool te jëlut ndox mi ba man ma dellu fa ma toogoon foog ne dafa bëgguta naan mu dem ba ca kanam mu ne ma yal xasan kuntu aqra'u alwirda allazim wal muridu tijaani ida kaana yaqra'u alwirda allazim laa yatakallam wala yashrab mu ne ma dama doon jàng wirda lazim te téyewut kurus te taalibeeb tijaan suy jàng wirda lazimam du naan du wax ma ne ko ah bàyyi man da jàng naa ci téere bu ñuy wax du rottu taaj ñu ne mën naa naan tuuti mu ne ma loolu la wax rek waaye walaw juraatan ab guux sax mayuñ ko ko naan dafay fay xaalab sikar sopp nañ sax soo jeexalee sikar sax nga toog ba ca kanam nga soog a naan nga xam ne kooku awraat yi nga xam ne moom la jaayante woon ak yàlla topp na ko ba ca mujj waaye docteuram bi ko doon faj li ko gën a yéem ci sëriñ bi waxtu wu ko seetee rek ne ma is very strange his body is sick and his heart is clean mu ne ma lu doy waar jëmm jaa ngi feebar waaye xool bi dara jotu ko su ko dee bàyyi ne lan la wax ma ne ko mu ne al jismu maridun wal qalbu salim maa ngi koy fàttaliyaale laaya ja yawma laa yanfau maalun wala banuna illa man ata allah bi qalbin salim su ko dee nga gis mu alhamdulilah jullit la lépp lu aju ci diine ji neex na ko kontaan na ci muy alquran muy yonent bi lépp ko neex te xol bu sell boobu dafa yàgg ci moom bàyyi dara beesut ci moom ci nihaayam soo jàngee nihaayam rek soo jàngee bidaayaam rek mooy nihaayam wax na ci waxam ne su ko yàlla digaloon mu def tasarruf ci ci nit ñi su ko yàlla mayoon sirru tasarruf kon moom dana tànn def tasarruf ci xol yi pour ñu ñeel yàlla pour ñu nekkal yàlla dañ daa ànd ak moom ñi nekkoon Qahira ngi nii waxtu wuñ demee Sidna al Xuseyn pour ziyaara ji bañ indil ko mu rasulillahi sallallahu alayhi ndax kawar yonent baa nga fa dog dogit ci mbuubi yonent bi ma nga fa dammitu eti yonent baa nga fa tusngalukaay yonent baa nga fa kaamili sidna Ousmane bu mbind ak loxoom ma nga fa kaamili sidna Ali bu mbind ak loxoom ma nga fa waaye lu ñu yëkkati rek mu ne tegal ci suma xol bi ndax mu sell loo yëkkati rek mu ne ko tegal ci xol bi ndax loolu bàyyi nga ci jàngale dars bu rëy gannaaw jumaa yii ñooy néegi yàlla yi ci kow suuf jëmm ji néegi yàlla ci jëmm ji mooy xol bi rek xadiisu qudsi ba wéral na ko maa wasiani yi wala ardi wa wasiani qalbu abdi al mumin xajuma ci asamaani juróom-ñaar xajuma ci suuf waaye xaj naa ci xolab suma jaam bu gëm yonent bi wax ñu itam ne inna fi ljasadi mudratan ida salaha salaha aljasadu kulluhu wa ida fasada fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb jëmmi doom aadama aw lumbang ci su yéwénee jëmmi ji yëpp yéwén na su yàqoo jëmmi ji yëpp yàqu na mu ne moom mooy xol bi wax ci benn téeréem ne doomu aadama mu ne mi ngi làmboo mbóot moo xam ne kenn ñemewu ko wax su juddoo ña ngi koy enu su feree ña ngi koy enu ba mu mat waxambaane nekk nit ñu di ko enu ci daaba yeeg waruwaay yi ci suñ jamono ci oto yeeg otoraay yeeg avion yi bato yi ba su dee sax dinañ ko enu ba ca kaw soog ko suul mu ne mbóot mi nekk foofu kenn ñëmu ko wax bàyyi ne ndax gannaaw xol bi mooy place yàlla ci nit ki loolu mooy mbóotam lu tax ñuy enu nit ki ci waxtu bu nekk ba nga xam ne su dee sax dinañ ko enu soog ko suul ci suuf si sonn googu mu doon sonnee pour defar xol bi moom feeñ na ci moom ba docteur ba nga xam ne sax du jullit waxtu wu ko seetee ne jëmm jaa ngi feebar waaye xol bi dara jotu ko te yàlla wax nañu ci alquran ne yawma laa yanfau maalun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim bés ba nga xam ne alal du ci jëriñ doomu aadama ay doom duñ ci jëriñ doomu aadama lu may ku yàlla xol bu sell xol bu wér ñaari wàll yu dañoo dund ci jamono kii ñàkk lool kii am lool sëriñ bu ñàkk bi ebal kenn ci taalibe yi ne ko dama bëgg nga dem ziyaara suñ suma mbokk diw nga ne ko nañu ñaanal yàlla te dénkuñu ba demee ba ca kër ba sëriñ ba dëkk kër ga sëriñ bi dëkk mu gis muy étage qasr mu laajte ko ñu ne dafa dem seeti émir bi mu taxaw di ko xaar bi sëriñ bii ñëw mel ni buur buy ñëw topp meeg ñu jóge ci kër buur bi gunge si ko ñépp topp ci mu ne daal kii daal sama sëriñ dëgg-dëgg xamu ko waaye kii buur la yooyu yëpp éemu na waaye mu ne bi mu waxeek moom la gën a yéemu mu ne ko sama sëriñ mu ne nga ñaanal ñu te dénk ñu mu ne ko ñaan gi na nekk ci siraatul mustaqim ku ma gën a nga koy ñaanal ndax al malaikatu yastaghfiruna lilladina amanu dénkaane bi nag soo demee nga ne ko lu duwut yàlla rek na ko génne ci xolam bi mu ne subhanallah kii adde ji ko wër pale beeg alal jeeg topp meeg lii lépp nga ko wër muy wax sama sëriñ mi nga amul dara ci lii nga xam ne su añee du am lum reeree mu naan ko na nga génne lu duur yàlla ci sa xol bi mu dem wax ko sëriñam na ko mu ne lu duur yàlla de mooy dénkaane lu duur yàlla rek na nga ko génne ci sa xol bi sëriñam jooy ba tëdd ci suuf ne wallaay sama mbokk wax na dëgg différence bi suma digganteek moom moom yàlla dafa def àddina lépp ci ay loxoom mu di ko soppandiku ci lu neex yàlla te dara ci àddina jooju àggut ci xol bi man nag yàlla rafleel ko ci samay loxo def bëgg-bëgg bi ci xol bi ma bëgg ko te aw ma moo tax bokkoon na ci ñaani bàyyi muy wax na yàlla na yàlla feesal loxo yeeg àddina te feesal suñu xol yeeg yàlla su xol yi feeseeg yàlla rek su loxo yi feeseeg àddina duñu duñu duñu lor yàlla na yàlla feesal loxo yi ak àddina te feesal xol yeeg yàlla moom sëriñ boobu xolam sell na mbooleem ñi nga xam ne àndoon nañu ak moom mu yar leen comme ni ko Cheikh Mouhamad Lamine waxee léegi seeni xol sell na ndax yàlla lañ àndee woon ak moom ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ci taalibeem yi wax na ne man de su ma gisoon ci bàyyi benn bés lu wuuteeg sunna kon keroog ma tàggoog bàyyi bi ma déggee wax jooju ma ne kooku mën naa wax loolu ndax sëriñam kii bàyyi wax na ne wasaana ilahi nafsiya dahra la ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza yàlla sangeel na ma sama bakkan bi jamono lépp ba kenn duma gis may jeng jëm ci loo xam ne daganul ci sharia sëriñ bu mel noonu nag ku ko am taalibe bi mën naa taxaw wax ne man su ma jisoon ci sama sëriñ lu uuteeg sunna keroog ma tàggoog sëriñ bi benn taalibe dafa mas a dem di uti sëriñ ba mu demee ba ca sëriñ bi ñu ànd jëm ci jumaa ji sëriñ bi xaaxtandiku taf li mu jëm penk mu dëpp ne man sëriñ boo xam ne mënta wattu adab min aadaabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam du ma ko jox sama bopp koo keroog la tàggoog sëriñ boobu ndax taf li mu jëm penku bokkut ci adab bokkut ci teggin bàyyi ñu teg adab la woon dafa am yar maa ngi fàttaliku benn bés ñuy dugg ci im euh, Hussein Chafe naib rais vice président ci Qahira bañ demee bañ ubbi bunt bi mu ne Assane am téyel ma sama et bokkut ci teggin ngay dugg ci kilifa di dugg ak sa et te booba moom paase na juróom-ñaar fukki at war a sukkandiku ci etam pour gën a pour dëgërloo ko téyel ma sama et ndax bokkut ci dugg ci kilifa bokkut ci ëdëb ngay dugg ci kilifa di téye et seetal ma loolu bokk na ci wattu gi mu wattu sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu tëddee ci lalam waxtu wu nekk yaa ngi koy dégg asan kaa jàppal ma suma loxo ma tëddee loxo ma tëddee wàllu ndeyjoor loolu yépp suma la ba mu demee ba nga xam ne alquran ji su koy jàngitam moom moo koy dégg la ma waxoon ne ma soo demee ba déggatoo ma sax xamal ne maa ngi jàng maa ngi maa ngi jàng maa ngi tar te moom lépp ma ko leer ni nga xam ne yonent bi noonu la bàyyee xeet yu alal mahajjatil bayda nga xam ne guddi géeg bëccëg bi benn la bàyyi itam mbiram lépp noonu la ko leere bés ba mu njëkk fanaan ci Londres rek ba ma ko gisee ci ëllëg sa ne na ma man sama géwante bi yàqal na ma paj mi ma ne ko loo gis ne ma damaa gént nga am ñaari doom yu góor tuddee ma ko ma ne ko xay bàyyi da ngay dund rek ma am ñaari doom yu góor tuddee la ko ma ma déeréet suñ doon jigéen de ma ne waaw waaye góor ndono ñëw na rek waaw ca géntam googu rek la tàggee boppam su ma ne ko docteur bi mu ne bés sàngam dana la eewi nga dellu sa kër mu ne ma loolu la wax ma ne ko waaw mu ne man de gawuma ko waaw donc loolu la docteur bi wax man gawuma ko muy bés yoo xam ne dund nañ koog bàyyi nuqta bu ci dekk rek moo xam lu mu wax moo xam lu mu ñaanlu bind naa ko ci ay safaxaat ndax ba ma jegee Londres rek sama baay def ne ma dama bëgg nga bindal ma sa bés yu bés yu mujj sa maam ak bésam bu mujj dama bëgg nga bindal ma ko ci kayit indil ma ko oustaz mi mas naa ñëw suma kër ñoo am ci guddi lëmm di ci jàng keroog ci ay jooy lañ tàggoo def naa ko ci fukki fasal ak benn suma sëriñ maamoon teeloon a yëgal jotaay bi ni ko noonu danaa ko gën a préparé waaye ci tusubaar la na yëgal ne bokk naa ci ñiy wax fii tey ba mu demee ba nga xam ne day ñëw na mu commencé di gis waa alam bale ndax maa ngi taxaw mu naan ma ab Malik mi taxaw nii nag Amad Mati Daado mi fi taxawoon léegi demal ool ma ko ma ne ko bàyyi kuy ëman mati daado bi ma ko waxee sama bàyyi mu ne ma kooku sàmm bàyyi la woon ba mu génnee àddina léegi ëpp na ñeent fukki at boobu yow sax juddu woo mu ngi gis waa alam bële ma xam ne ci tàggoo naag suñu alam bi bi ko docteur bi mu jee seet ndax damaa ñëw nuyu ko loxo bi sedd ma ne ko bàyyi dangaa liw mu ne déedéet ma dem oo docteur bi ne ko kaay seet ko ci loxo mi dafa sedd trop docteur bi ne seet ko ne ma xol bi moo commencé taxaw soo gisee loxo bi sedd deret ji moo àggatut foofu te sedd boobu soo làmbee tànk bi da ko ci da nga ko ci gis bàyyi na lu mu wax gannaaw daf maa waxoon ne liñ lay waxee bu ma ci nëbb dara ma ne ko mu ne xol bee commencé taxaw mu ne alhamdulillah benn tubaab laaj na ma ca London ne ma sa maam ndax ba mu demee ba gis ne dafay génn àddina ndax tiit na ma ne ko déedéet alhamdulilahi la wax waaw kooku xamleewu dund ak dee dundam baax na deeyam baax na dundam dund na ko ci lislaam ba mu dee itam bàyyi na fii ay kàngam yoo xam ne boobu ba léegi ku nekkan ci ab gox mbooloo mi di yokk guddeeg bëccëg sharqan wa garban shimalan wa yaminan foo dem rek mbooloo maa ngi fay yokk te lépp moom la ñuy tudd place yoo xam ne moom tànkam taxawu fa sax taalibe yi taxaw nañ fa ba léegi ay taalibe nga fa ñu xam baay di ko tuddoo di ko gént sax di ko gis man gis naa ay américains yoo xam dañuy gént baay di muy wax ak ñoom te baay demut Amérique soo demee ba Inde taalibe yaa nga fa soo demee ba Bermude ba Jamaica foofu dem rek dana da fekk ay taalibe benn jamay kenn dafa ñëw seet si ma ci at yele ci gannaaw du jullit waaye bi mu gisee jumaa ji mu ne man daal gisuma sa maam waaye ku gis jumaa ji xam ne xolam di xol bu rëy rëy la moom ci jumaa ji rek ci la tegtaloo ban façon ngi xol la bàyyi amee woon kon nag dénkaane bi mooy nañ jéem a sellal xol yi niroo ko suñ sëriñ innal muhibba liman yuhibbu mu tuyoon nit ki kum sopp rek war na koo roy sama baay daana wax ne baay bàyyi rek doyut nañ seet jëfi baay jikkooy baay xam ne lépp dafa rafet amul dara lu ñaaw kóllëre baay dëggoom nga xam ne lépp dafa wér moo xam muy dëggoom ci sharia moo xam muy dëggoom ci xaqiqa ay silsilaam nga xam ne lépp ci ay ndigal yu wér la taxaw dama wax ne fu nit ak aadi di jaar rek bàyyi jaar na fa ndax bëggut ñu askan mbir mi yépp ne ay karaama la bëgg na nit ñi def ay effort te gannaaw suñ defee ay effort yàlla mën nañoo may ci barkeem éegal ñu ci darajaam kon bëgg na wax wu nekk nit ñi di def ijtihaad di gën a góorlu ci seen diine gën a góorgóorlu ci rafetal jikko yi wax rafetal wax yi rafetal xol yi rafetal bépp jëflante boo xam ne ñu ngi koy jëflanteeg yàlla wala ñu di ko jëflanteeg doomu aadama yi noonu la suñu sëriñ meloon ba ba muy uy ji boromam waaw ku niru yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ma wax ba ci laay riba yi nga xam ne moom la yonent bi mujj tereteeg jaam yi wala moom la wax yu gi mujj indi ci yonent bi mooy masala mi nga xam ne man moom laa ko mujj laaj te booba xaw ma xaw ma sax ne mooy laay yi mujjoon a wàcc gannaaw gi laa seet rek gis ne sidna Omar tontu na ci ne mooy laay yi mujjoon a wàcc ci yonent bi yonent leeralu ko dee dab ko daanaa yër yi bu ko ilaa maa yi bu ko lépp loo am sikk bàyyil lépp loo amul sikk jëlal wala defal bàyyi itam yàlla niral ko yonent bi ba ci loolu mu teg ci geneen karaama juddoo tey ba fii génne àddina fële ca London mu rot ci xadis ne nit ki su deexee àll danañ nat fa mu juddooyee ba fa bakkanam rotee yaaxale bàmmeelam noona leerale ko ko seetal nag bàmmeel bu am ni diggante fi ak Angleterre ñaata junnee kilomètre bàmmeel boobu taalibe yëpp xaj nañ ci yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla nañu yàlla teg ci yoon wi nga xam ne moom la bàyyi doon tracé dundam lépp nga xam ne lépp mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla buñ ci teggi suñuy tànk mbooloo mi yépp yàlla na nañu yàlla may xol yu mel ni xolam ba ci sell ak bëgg lu baax ak bëgg lislaam bëgg nit ñu baax ñi bëgg lépp lu baax nim bëggee lu baax ak bëgg nit ñu baax ñi ku ànd ak moom rek xam nga xam nga xam nga loolu ci moom ku ànd ak moom rek xam nga loolu ci moom koy mu ne kii mu jaxoñ nit ne diw mii xam naa ne du nit ku baax waaye mënumaa ñàkk dimbalanteeg moom ndax baayam dimbale woon na suma baay ci jamono joo nga xam ne sama bàyyi soxla woon na ci ndimbal déggal ko lëre googu du ne moom la jëflantee direct li baayam la jëflantootoon muy sàmm loolu waaye ba tey loolu xadis la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bokk na ci nga baaxe sa baay gannaawam nga baaxe ñooñ cofeelam lépp lu mu def rek xattaa waxtaani olofam soo koy déglu nii te xam alquran xam xadis jumla jum daane rek mën nga koo daane mën nga koo delloo ci alquran wala nga delloo ko ci xadis sëriñ bu mel noonu lañu yàlla may gannaaw sëriñ bu gën lañu yàlla may nañ jéema a nekk nit ñu gën topp xatawaat yooyu moom yonent bi la toppoon ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman falmasiru baidu gannaaw yonent bi la toppoon ñun moom lañ topp suñ ko toppee rek nañuy wóor ne rek ñun ñu ngi ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu saxal ci tànk yooyu ñu ngi sant yàlla bu baax di dol di dellu di ndokkeel mbooloo di ndokkeel Cheikh Abdoulaye ci suñ na xasana bi nga xam ne moo ñu ko defal xiw wuñ ci am am na ci cër xiw wuñ ci jëlee am na ci cër ndax xalaatam la moo ko tracé moo ko saxal su ci noppi woon itam su taxawoon ne kenn dootu ko fi def itam dootuñu ko fi def te tudd bàyyi comme li ma leen wax wax léegi rek inda zikri salihina tanzilu rahmat yàlla nañ sax di tudd bàyyi daa iman yàlla nañ sax ci yoonu bàyyi daa iman ba bés ba ñuy taseeg moom mu gërëm yàlla gërëm ñu Cheikh Ahmada Tidiane gërëm ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu

فليتفضل مشكورا حابها سوء الذنوب سماحة ولذا حكوا أن السماح رباح وبها وبالعهد الوثيق وسائل تدنو بها الثمرات والأفراح زود لموجات المزارف زفرة ياتي بها المطلوب والإيتاح تمحو دموع العاشقين مآثما ومن التواجد والهوى أرباح حصل المراد بطيبة حصل المراد بطيبة فتنعموا ما في التنعم جهلة وجناع فإذا بدا رجب على أفق المنى نادى المكارم للهداة فصاحوا هبوا هبوا هبوا إلى نبع المعارف فانهلوا نهلا وعلا للمناهل راحوا وتعانقوا وتصافحوا وتسامحوا طبع الكرام تسامح وصفاح فعلى مرابع طيبة وبعيدها طابت لنا الأنفاس والأرواح فترقرقت أجفاننا ترمي الدموع على السطور فزالت الأتراح وتساجلت أقلامنا أي كالمنى فتوالت الزفرات والأمداح والشعر في رجب يزف, يزف بناته لجمال من تصفو له الأمداح والشعر في رجب يزف بناته لجمال من تصفو له الأمداح وارسم على وجناتها بالوجد ما لا تمحه طول الزمان رياح وإليك يا مهد المكارم طيبة بعد السلام تحية وأحاح يا مهبط النور المطلسم رحمة منك الهدى وسعادة ونجاح شرفت بك الكوس المفجر فيضة سقيت بها الأرواح والأشباح لولاك ما طلعت على أفق الهدى شمس ولا قمر ولا مصباح لولاك دامت بالجهالة ليلة وتستر المرضوح والمرضاح يا طيبة طابت عليك مقامة لمتيم تحدو به الأتراح نفديك بالأرواح والأموال يا من قد أتى من نوره الإصباح عرج بكر هيره عرج بكرهير المطول عهده سلها العمامة ثم أين صباح بمدينة وبروضة العلم الذي بمديحه الأقلام والألواح واقطف من الأنوار باقة نشوة من شمسها يبغي الهوى يرتاح واسجد على تلك المعاهد سجدة تسبيحها الزفرات والأمداح قل في أبي إسحاق أحسن مدحة لتنل بها ما لم تنله مداح قل إنه معنى الجمال وحرفه ومن الكمال سجيحة وسجاح واسجد لدى ذكر المحاسن سجدة لتزول عنك شكاية وكلا ba tey ci lali deem nee na ma man ba may jàngale maqaamaatul yi dafa meloon ni dama koo mokkal ma ne ko ba nga koy jàng wala ba nga koy jàngale mu ne ba ma koy jàngale laa la wax ndax jànguma ko ci kenn te maqaamaatul xariiri yi yéen ñi jàng xam ngeen ne arab yi dañuy wax ne sulusul luxal arab yi mi ngi ci téere boobu kon xam ne nag yàlla may na la fat fatxu nga xam ko te jàngoo ko ci kenn loolu fatxu mënu koo paase Baay Amadou Thiam radiallahu anhu bi ma ko nettalee wax ji mu ne ma maam alaaji Abdoulaye dafa masa oote dars ci kanamam ne dafa bëgg alaaji Mor bu jàngale maqaamaatul xariir te na ñépp teew mu ne ñépp di teewee dars bi ci kanam maam alaaji waaye Baay daawut teew mu ne ba mu dem seeti ko ne ko yow ni alaaji mel ak yow di jàngale te yow doo teew mu ne ko man daal lu ma jàng ci maqaamaatul xadiis dama ko gisut mu a ko ah foo ko jànge mu ne ko man daal gisuma fu ma koy jànge jàng mën naa ko daal mu ne ko su ma la joxee téere bi nga firil ma mu ne ko waaw bu baax Baye Amadou mu ne moom itam mu ut ma téere seeti Baye tegal ko téere bi mu ne mu firil ko maqaama bu njëkk bi mu gën a neex bu baayam gën a neex bu alaaji mu ne ñu jàll bu gën a neexati bu ñetteel bu gën a neexati mu ne ko yow mën ngaa ñàkk a teew <laughs> loolu laa loolu laa ma dolli ko ci wax ji borom fatxu boobu ak fatxu beeg yépp waxtu woo ko gisee rek da ngay fàttaliku bayt bii bu sayri yu taggewoon sëriñam qad la gaayata maa yarumu almuntahi min rabbihi wa lahu ijtihaadu almubtadi lim bëggoon ci boromam yépp am na ko waaye waxtu woo ko gisee rek mi ngi mel ni tey la tey la soog a commencé ci ijtihaad asalaamaaleykum wa rahmatulah